Bonjour et bienvenue sur IK News. Euh, aujourd'hui, hein, comme vous le savez, la campagne électorale bat son plein au Sénégal comme dans la diaspora. Ils sont dans le 18e arrondissement où ils font du porte-à-porte et rencontrent les militants euh, de la coalition. Je suis nuyu tour alamin Tay moy premier jour démarrage campagne dans le 18e arrondissement tout le monde est réuni là tout le Beno est là pour représenter le Sénégal pour représenter notre nation pour dire au président Macky Sall qu'on est fier de l'avoir comme président de la République de l'avoir comme chef de parti et d'avoir le Beno Bakayakar avec nous. Ça nous honore. Le fait qu'on soit dans le 18e aujourd'hui et qu'on commence la campagne chez notre frère Amadou Dia, c'est d'usage et d'habitude. halpular en mbi jehen to hanki hanki koko weeli kala nde min mbaɗatno campagne min ɗiɗo so min somin sappo somin nogas min garat ha do. hande non artiri min do. ko min mbanno feewe amen ko min mbanno jigi jigi min ko ko ɗum art min garti hannde wadde emin beltani allah emin beltani doyen amadou dia no feewi emin nganndi engagement makko emin nganndi yidde makko sénégal emin nganndi kadi contribution makko eko sénégal woni ko eɗo sénégal yarata ɗo donc en min tawanimo ɗo kono min tawi ɗo galle makko min tawi ɗo ha dia farmata badel loom min tawi ɗo ses frères min tawi ɗo bandiraɓe makko min e min garde délégation dariɗo honorable député sidi Nando, nanɗo kañum titulaire amen suppléante madame coumba ba nanɗo heddiɓe ɓe garani ɓe commune ni mumen gondi won wonɓe lawol nana gara cuwa yettade ko ɗo noon min puɗɗori ko ɗo équipe aji ɗi peccodirta ɗo min natata e nder 18ème ha allah waɗana min no waɗanta min hitande foni min gandon kadi le 31 juillet 2022 min mbaɗat tan kono min mbaɗatno min koota law guila nangue mutani président Macky Sall wona ɗo woni ɗo assemblée o wona ɗo wonno ɗo min mbattano min mbanno ni eyyi assalamu aleykum ok assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on min juurima on min beltanima on hande ko min arɓe ɗon e biti grand frére amen amadou dia pour wadɗon démarré campagne amen dans 18 arrondissement c' est pas la première fois euh, hitande foof ko noon min mbaɗatno allah hokka min sagoji amen min dañi ko min jiiɗi ko min garti noon wadde ko min mbaɗatno ko kadi beele allah hokka min beele allah hokka min min daña ko min dañatno ko eh, sawa rewe lawol allah hokkuma hen saago ma a fana ko pooti ngolɗon lawol ngolɗo lawol noon ko ɗo min ndewanno allah hokka min sagoji amen joni min garti kadi min deftemeggol beele allah hokkade allah kadi hokka min sagoji amen hamin daña vraiment ko min dañatno ko omin ñaagui tan bandiraɓe min puddima bisimillahi arahmani arahimi yo allah hokken yettinde alhamdulillahi rabbil alamina hande noon koye boutique amadou dia min goni ɗo c'est pas la premiére fois ɗo ko galle amen ko ɗo tan min gonanno hitaata fof ɗomin puddotono kadi min ñaggi ko minañano ko yah lokku min ɗum ɗon hokkam président makisal assemblé national o lo lo lo 31 inchallah 18 heure taw min dokki résultat jam en sénégal naɓe min gatti min jooɗi min koti min paati galleji ɗum noon vraiment min wiya kadi aussi arɓe fof ɓe jarama ɓe tinnima heddi ɓenen gara e lawol so allah jaɓi inchallah ɗo ha 20 heure ha 21 heure min ɗo ene 18 ieme so allah hoddiri kadi min bannu min mbaɗanno foof kala ɗo foti jeere mamin jaa kala ɗo foti yettere mamin jatto ok mi salminima mi weltanimama mi hokka bani meɗen debbo coumba jeeri ba e sipériente de paris assalamu aleykum rahmatullahi barkate bandiraɓe mi salmini on goto foof inde mum yettode mum hande meɗeni min goni ɗo 18e uh, arrondissement 18e arrondissement o noon maire mum ko eric le soin donc uh, min goni ko boutique mo ganduɗa kam woni jagaraf dimat amadou dia ɗo min idoratno min daña jaam donc hande ko ɗo min idori min coumba jeeri ba noon ɗo konmi 18ieme e kadi meɗa jeeya section 18ieme donc meɗen ñaago allah min garatno ɗo allah okka amen dam meɗen ñaago yo allah okku amen ɗo dam kadi bomin dañatno o le 31 soulier 2022 haade 18 heure tawa yimɓe poɓɓi kelle gulliɓe mbi makkisal gañima meɗeni min gonde délégation forte délégation ɗo 18ieme aro arrondissement hannde ko weltare tan dañmi hen honorable député sidi kane ramata biran kane e délégation o fo mi accani hay goto aissata ba jeeya ko section 18 mo boni ɗo yaya Mangan jeeya ko section 18 mo boni ɗo donc yawa section 18 mo warema ɓene délégation he mi salmini on mi juurima on jokkon golle merci bisimillah rahmani rahim rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul uhdatan fi lisani wa yafqahu qawli donc euh, assalamu na N'engendef def euh, amoxo euh, amoxo kasoumaï. c'est ça le Sénégal c'est la pluralité euh, donc euh, le Sénégal est un Sénégal pluriel et donc un Sénégal apaisé, que nous connaissons sous Macky Sall qui a fait des réalisations hyper importantes et c'est important qu'on lui donne une majorité absolue au soir du 31 juillet. Une seule voix, une seule carte. Pas de violence, nous n'avons qu'une arme, c'est notre carte et nous voulons une pleine, victoire du président Macky Sall au soir du 31 juillet. Je vous remercie. Je me fais en direct moi la euh, campagne électorale bi et puis jàppale sama suñu député bi 31 juillet y may la main rek à l'Assemblée nationale je remercie tout le monde. assalam alaikum. maa ngi leen di nuyu di mbokk rawatina waa Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ah vraiment nag man li ma mën a wax mën neex euh, naa dégg muy euh, Macky Sall li ma gis man yàgg Paris yàgg dem ak a ñëw liggéey yor sama société à Paris au 6 rue Mirasse ay dem donc ñun la laa àndal tey moom la àndal ëllëg man maa ko wax man baaba nekkuñ ci ay saaganteeg ay yàqatee passé nañ loolu ay kilifa lañ liggéey moo nu tax a jóg te gis nañ ne ci liggéeykat la loolu laa gis ak ñi mu àndal tamit ku mel ni Youssou Ndour ku xam ne liggéey nga xam ba fi mu toll nii no macha allah ma ne vraiment passeport te doon na ko yombalal dem naa Sénégal sam passeport ba muy dem ñetti fan moo ci des pour bi ma demee dama dem Géejawaay ñu defar ko matul sax ñaari fan ñu defaram sam passeport fii tamit mboolem ñi nga xamante ñi fi nekk ñëpp ci nekk boo amee problème passeport wala carte d'identité du taxaw ñi ngi koy def ni ñu ko war man loolu gis gisul ko wax consulat ñi ngi def bi nga war maa koy gis macha allah macha amul benn sénégalais bo xamante consul am loo la mu jafe la gisuma ko mbir yaa ngi ci yoon leen li fi nekk assalamu alaykum assalamu alaykum ñi ngi leen di nuyu rawatina wa Sénégal ñi ngi nuyu wa aduna wa diaspora bi ñi ngi nuyu ñep kenn ku nekk ci sa tour ak sa sante waaw li waral nak moy euh jappalé ki nga xamanteni moy sun président de la république di monsieur Macky Sall Macky nak li nga xamanteni mom lañu gis ci mom ba tay ji lañu gisoon ci mom mom lañu gis ci mom ndax mi ngi liggéey mi ngi liggéey té ñun ñi nekk fi xamnañ ci dara dama yor sama société yor samay employé mat na nee naa la plus de sept employés yoo xamante ñoo ngi liggéey fii damay gis mbooloo différent de personnes yoo xamante ni ñëw fii ci man mais macha allah macha allah li nga xamante gis nañ ko mooy Macky Sall mi ngi liggéey. waaw suñu député bi jéem a jàppale ki nga xamante ni mooy Sidi Mamour Ka mi nga xamante ni tey moo fi teew. Sidi Mamour Kane mi nga xamante ni moom moo fi teew tey. Euh, def na 18e bi ñep gis na ñep jaar na rideau de ville machallah lampe Fall ba ngeen fa jaaré la ngeen fa fekk mbolo la kon bok ñoo ngi fësay na topp sa ginnaaw fësay na jàppale la ndax ñun kuy liggéey rek la ñuy ñi nga xamanteni sax mm. suñu adversaire lan mm. du liggéey rek moom tax a leen liggéey rek la eh, sànq gars da nek fi di wéranté ci politique depuis Guinée ne

parce que da nga wane yow auto entrepreneur nga quoi te tey boo xoolee si politique Macky Sall dafa am li nga xam ne Macky Sall daf ñoo considéré quoi parce que dafa bëgg ñu gunge ko. ñu gën ko jàppale jëm Sénégal émergent. dafa bëgg tey jii nii bépp sénégalais bi nga xam ne moo ngi fii mu jëngu ci entreprise wala mu créer entreprise wala mu bëgg créer entreprise da koy dafa am lu ñu naan FES. Mhm. moom mooy fonds d' investissement pour l' pour la pour la diaspora sénégalaise. Mhm. dafa am lu ñu naan DER aussi. yooyu yëpp day accompagne ñi nga xam ay sénégalais comme par exemple yow bu bëggee agrandir tey jii sa entreprise bi. Mhm. parce que da nga am ñi nga nga employé ay sept personnes. tey jii bëgg nga mu jëm ci kanam. donc pourquoi pas yow tamit nga bénéficier aussi nga jéem a déposer dossier. nga jëm a dugal te comme ça dañuy gis ñëriñu président lu mu wax donc loolu la bëggoon conseil li nga xamné c'est très important parce que ñun dañu wara préparer tamit suñu retour demain ñu baña xol suñu papa yi lu leen daloo ma bañ dal tay jii nii bu fekké dañu financer ñi monter fi ay projet wala ñi monter ay projet Sénégal mhm. buñu délé retraite ñi bi je pense que dinañ arranger quoi xam nga tay ji bu fekké né ñëw noonu ba ci wër euh, réew tubab bi ak fi ni mu difficile nga xamanté lepp ay kayit la metti yàlla def dimbali nu ci kàttanam ñu góor góorlu ba taxawal fii yenn mbir yi mais nag pour nga jàppale nit ki nii rek lay tàmbalee pour ñu gis jàppale la nii lay tàmbalee parce que nit ki bu fekkee ne gis naa ne kii mi ngi dem kii mi ngi liggéey di dem kooku day neex a jàppale mais mënoo toog rek teg la say tànk naan jàppale leen ma donc yaakaar naa ne li ñuy yëngal tamit président mi ngi ciy teg bëtam mi ngi koy gis donc voilà quoi ñun daal ñoo ngi ci ginnaawam di ko ndax gis na ne liggéeykat la te tamit

boo ñëwee nga fekk dëkk dara amu foon depuis Abdou Diouf bon projet yi fa Ablaye Wade defone yëpp mag eggale na ko franchement hein, sénégalais dañu yakamti mais buñu xaré touti yakana li naa lii ñëw mooy dàq waaw mais buñu yakamti parce que kër balaa nga si dëkk il faut nga tabax ko donc mag yi dëkk mënul développer da amul ay route donc bo démé ci àll bi ak Dakar yëpp mi ngi koy def ay route donc su paré ci lool après entreprise buñu ñëwé nit ni dinañ mën a dem mën ñëw loolu mooy développement dëkk mais dëkk mënul développer ce amul infrastructure bu baax quoi voilà donc ñu ngi seen ginnaaw di leen jàppale Macky ñun defaluñu dara ñuy dundal suñu bopp mais dañ ko bëgg ngir yàlla tax parce que mi ngi liggéey donc sénégalais yi nañ ko jàppale mu eggale mandaam ñu bàyyi troisième mandat bi ñuy wax ñu concentré wu si li ñu bëgg lu manqué Sénégal hmm? mi mbalit mi santé mi location surtout sénégalais dañu sonu si location dafa cher bon dundu bi cher na aussi location cher li ñuy am mënuñu ci dundu donc na wàññi location pour lu ñu mën comprendre nga wa loolu c'est important location dafa cher Sénégal donc man loolu la don am lu ñuy wax bon ñun nak dañu nek fi di liggéey pour Sénégal mais Sénégal rek lañu bëgg bëgg nañu ñibbi parce que ñu ngi suñu famille

pour faire du porte-à-porte et une campagne de proximité. Parce qu'on sait que la campagne, elle se gagne par le porte-à-porte et par la proximité avec les Sénégalais. Telle réunion deuxième parce euh, ah, que nous avons beaucoup de compatriotes sénégalais qui vivent ici et qui travaillent ici. Nous étions venus donc à euh, masse aujourd'hui euh, faire du porte-à-porte pour discuter avec eux, de les et avoir, savoir leurs difficultés et discuter avec eux dans le cadre de la campagne donc, électorale. C'est le mythique d'ouverture. On voulait le faire samedi dernier, mais puisque c'était la Tabaski, à partir de 18h au Miro, tout le monde est invité pour lancer la campagne donc, de manière officielle. Nous faisons nous ce Muro parce qu'on doit défendre le bilan du président Macky Sall, dire aux Sénégalais que le président est en train de mener le Sénégal vers l'émergence. Et ça, on a besoin de tout le monde. Parce que la politique, c'est la euh, euh, les élections, c'est l'addition. Nous voulons que tout le monde vienne et qu'on mette en avant le projet du président Macky Sall, le président de la coalition de la coalition Parce que nous sommes en coalition, nous sommes la coalition la plus longue et la plus durable de l'histoire politique du Sénégal. On a envie, avec le président Macky Sall, de continuer à amener notre pays vers l'émergence. Mais au passage, d'Inawa, Nafio ñuy wax bambara maa leen di wax ani soxoma mais ani suu plutôt laa leen di wax maa ngi wax euh, naar yi xaalkum maa ngi wax pulaar yi no mbaɗɗon maa ngi nuyu ñëpp pour ñu Sénégal benn la donc ñëpp jàmm la ñu bugg au soir dañu bugg la le en juillet ñëpp la ñu yëkkati seen carte lu tax man Aïssata Ba Aïssata Alpha Ba may da and ak Macky ça fait 24 ans fi ci France may And euh, may travailler auprès des populations les plus vulnérables offensive éducative bi jox ko euh, mon coordinateur jottali na ko président Macky te xamna dina ko mettre en avant suba bëgg ëllëg tamit bëgg nañu sénégalais bo xamantene bu amul bu am ay jafé jafé par exemple yenn yi tamit yàllañ ci yalla musal mun nañu def prison mais même ñooñu dañ war a jàppale ku ñëw amuloo kayit wan lañu jappalé ku ñëw am yaangi ci jafé jafé

waxtaan nag ñoom jox leen idée gis leen bu baax su fekkee même bu nga deful dara sax seen waxin rek dina leen yokk courage am na doomu Sénégal yi ñu waxin mooy lépp loo gis gis doomu aadama mooy lépp doo leen toog ba tey rek ngeen ñëw waaw li nga wax nag wax nga wax bu rafet doomu Sénégal lañu ay Sénégal lañu jógee ñëw fii daan suñu doole wàllu élection moom bu jour buy jotee ku nekk fu mu am yaakaaram sandi foofu kattam amul guloo amul xeex

jàppeelu euh, chance mais mais en tout cas ça fait 24 ans que je travaille aux populations aux plus vulnérables offensive bi ci président assalamu en on salmina e euh, euh, honorable député soupolia député euh, responsable adjoint coordinatrice euh, paris 18e section paris 18e meden min hannde ngoni paris 18e meɗen ngoni ripoloso meden ngoni e tourné pour uh, législatif 2022 hen min goni donc meden population o oh, sénégal et wonɓe ɓeɗo min goni oh, do sénégal atelier ji meden pour député la diaspora soɓe cuɓama taw heɓe mbawi jagguiran askan o askan o yooɓe ndeno noon ko commune nanata ko so on polama on jejjiti yimɓeɓe ɗum meɗa sikki ɗum wona yimɓe président makkisal wona ɗum min paandi hen min paandi ko janggo jaam somin jaahi assemblé national min darano toon askan o min darano toon ɓiɓɓe leydi ɓe meɗen yaagoɓe noon doole yooɓe gar ɓe gotana président makkisal liste benno bokka yakar beeli min da majorité à l'Assemblée nationale mais les eh, merci on attention attention alors nous étions aujourd'hui dans le 18e arrondissement parmi de nos candidats euh, députés euh, sous la houlette du coordinateur du parti Amadou Taladaf avec l'ensemble de nos camarades et je dirais même sous la houlette euh, de Benoît Bokayakar, avec tous les partis sont représentés, euh, notamment je voudrais juste euh, en citer un, Tonton Dorossi qui représente le parti Oser l'avenir, donc Tonton Abdoura Mandalo du donc il y a tout le Benoît qui est là, il y a toute la mouvance les inciter à voter pour le, la majorité présidentielle, les inciter à voter pour la stabilité du pays, les inciter à voter enfants aient un avenir radieux, comme je le disais tantôt à un, de un des jeunes. Donc, euh, ce que le président a fait. En fait, il a, il a pris toutes les couches de l'immigration, euh, que ce soit de, de, la, de, la femme, de, de la commerçante, au cuisinier, euh, au docteur, à, la, à, la, à la mère au foyer. Euh, les, binationaux également, ils souhaiteraient que ceux qui sont issus de l'immigration, qui connaissent les problèmes de l'immigration, qui ont vécu les problèmes de l'immigration, nous avons convaincre les plus récalcitrants. On s'est rendu compte en fait que c'est pas que les gens euh, c'est ce que le président faisait. Il y avait juste un problème de communication. Il y avait un manque de communication. Les gens étaient endocrinés par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fake news qui circulent pour la majorité présidentielle ensemble ande, wuti merci beaucoup. donc tey dañoo ñëwoon dans le dix-huitième accueillir nañ ñu ak dans ndax Sénégal léegi ay la yéwén teraanga Kessela, respect Kessela, la loolu xam Sénégal loolu mooy li nga xamante ne moom suñu marque fabrique dëkk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di masawu coono ñëpp di wax ne que dañu ànd ñun ñëpp et l'idée pour nous c'est le c'est de leur donner l'ensemble des arguments qui doivent nous pousser à être qualifiés au président de la République. Et les retours que nous avons eus, les messages que nous avons eus avec nos compatriotes nous rassurent. Et nous continuerons ce travail de proximité pour qu'au soir du 31 juillet, que nous puissions avoir qualifié, avoir la victoire dans la diaspora. Et merci beaucoup à tous ces jeunes qui se sont mobilisés et à la rencontre de nos compatriotes. Merci.